prédécesseurs yi defee lu jëm ci wàllu lion yi dañu leen di encourager parce que doonte démb amuñu ndam ci match bi ñu doon def waaye li ñu mën def nañu ko ah, dañu leen di encourager di taxaw ci seen gannaaw ba match yi nga xam ne nii mooy ñëw ñu mën ci am ndam te it comme niñ ko waxee défaite ci premier match euh, bari na réew yu ko yu mu dal te teewut sori nañ ci championnat donc moo tax euh, ñu ngi leen di encourager di wax sénégalais yépp ñu nekk ci seen gannaaw jàppale leen ba nga xamante ni dinañu mën a ci match yi di ñëw ñu mën a am ndam bu ñu jógee ci loolu dañuy sànni ñaari kàddu ci suñu député yi nekk assemblée assemblée nationale damay wax suñu député sax waaye xëy na Euh, du terme approprié puisque ñoom ay député askan wi lañu donte dañ leen a fal ci turu Yewwi Askan Wi mais représenté wuñ fa Yewwi Askan Wi dañ fa euh, représenté tout le peuple sénégalais période bii ñu nekk ñu ngi nekk di voter budget mu nekk ñu nekk plénière danañ ci nekk ba 9 sept 9 décembre ñu ngi leen di encourager suñu mbokk député yooyu di leen féliciter ci taxawaay bi nga xam ne nii am nañu ko foofu sa assemblée nationale parce que depuis plusieurs décennies li ñu tàmmoon gis assemblée nationale mooy benn majorité mécanique boo xamante ne nii bu ñëwee budget yi lépp dañ koy voter comme lettre à la poste du ñu am l'opposition bi du am euh, mbooloo bu bari bu mën a opposer ba nga xamante ne nii ñoom dinañ comprendre ne li ñuy def jaaduwul waaye député yi nga xam ne nii ñoo fa nekk ren donte taxawaay bi war nañ ko gën a yokk waaye ñoom it ñu ngi def li ñu mën ministre yi jaaxle nañ député Benno Bokk Yaakaar yi jaaxle nañ fi mu toll ñu ngi saaga ñu ngi xaste ñu ngi def lu ne parce que dañoo jaaxle moo tax ñuy wax suñu mbokk député yooyu ne leen bu ñu fàtte mukk mukk ne leen askan bi lañ fa toogal bu ñu fàtte mukk ne askan bi ñoom lépp lu ñuy def ci assemblée nationale nañ ci jiital intérêt askan bi ba nga xamante ne ni budget ma Macky Sall wax leen ñu voté ko budget la boo xam ne nii bi amul c'est pas un budget d'investissement budget la boo xamante ne nii mën nañ ne sax budget pré-campagne la pour 2024 donc lu mel noonu nag ñoom ku ci nekk na ci jël responsabilité am taxawal askan wi ba nga xamante ne ni li intérêt askan wi ñoom danañ ko défendre ah bu loolu weesoo nag dañu tàmm suñu tolloo ci yenn événement yi eh, dëkk bi danaan selew kenn dootul xalaat lu dul ci événement boobu mais loolu piège la gis nga ñu ngi toll ci coupe du monde coupe du monde boobu bu mu tax ba askan bi fàtte ay difficulté bi coupe du monde bi bu mu tax ba politiciens yi politiciens yi sax ci à la fois peut-être péjoratif mais les politiques ñu nekk ci société civile bi ñu bañ a fàtte combat bi nga xam ne nii moom la ñu war a mënee ngir jàppale askan bi parce que Macky Sall daf ko tàmm bu ñu tolloo ci période yi day def tout ba kenn du wax day def tout dara du am ñun nag Yewwi Askan Wi loolu lañu xam parce que combat bi ñu xeexal xeex bi ñu ne di di xeexal askan wi amul app amul bés amul heure donc xeex la boo xamante ne ni bés bu yàlla sàkk ñu ngi ci te duñu ci jógit tant que demuñu ba am li ñu bëgg du ñu ci jóg donc moom bu yaakaaree ne coupe du monde bi dafay ñëw ñun ñu toog croiser suñuy loxo ba coupe du monde bi ñëw ñu ñu ñëwaat ne dañuy am lu ñuy wax nax na boppam askan wi danañ ko xeexal difficulté yi nga xam ne nii moom la askan bi di dund jamono bi xëy na euh, président Ousmane Sonko dina ci ñëw mais sénégalais yi dundatuñu sénégalais yi benn repas la am ci euh, vingt quatre heures yi loolu jaaduwul moom mi ngi ak euh, ay ministre am mi ngi ak ay njabootam ñu ngi ci seen jàmm di dund correctement te pourtant ñoom li ñuy dundee as Séné askan wi moo ko moom. li nga xam ne nii la ñuy dundee ñoom askan wi moo ko moom ba pare taxawuñ taxawaay bu permettre askan boobu dund donc loolu moo tax xeex bi ñuy xeex amul waxtu amul ab bës bu ñu bës heure bu nekk lañ ko war a xeex heure bu nekk lañ war a xeex xeex bi beneen bi euh, soxna Aïda Mbodj mi ngi koy wax lu jëm ci wàllu journaliste yi mais moom li mu xamul moo di jàpp bi mu jàpp Pape Alé tëj ko dafay wane ne Pape Alé Niang il fait très bien son travail c'est parce qu'il fait très bien son travail moo tax mu tëj ko parce qu'un journaliste d'investigation liñ koy fi koy xaare mooy fan li nga xam ne nii ah, euh, euh, euh, muy muy régime bi muy muy muy ministre muy président lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def te méngoowul ak intéret askan wi ñoom ñu toog xalaat ci enquête yi ci vérifier ko ba pare diffuser ko booli ci sax moom ñu ngi koy taqal loo xam ne nii defu ko mais loolu yëpp dafay wane ne fi mu nekk nii président bi ñu am mooy président bi gën a impopulaire ci histoire au Sénégal mooy président bi nga xam ne nii lu jëm moom c'est le président des premiers mooy président bi juddu avant indépendance après indépendance plutôt président bi nga xam ne nii lu jëm ci violer constitution Sénégal li mu ko ci defee amul benn président bu ko def mooy président bi nga xamante ne ni ci manipuler justice mooy président bi nga xam ne ni fi mu ci yegg amul benn président bu ko def mooy président bi nga xamante ni lu jëm ci séparation des pouvoirs le les murs de la séparation des pouvoirs mooy président bi nga xamante ni ci daaneel mur yooyu la dëkk moo nag mooy président bi nga xam ne nii moo nar a par la petite porte Abdou Diouf am na nu mu génnee président Senghor am na nu mu génnee Abdoulaye Wade am na nu mu génnee waaye kii fi nekk bëgguma sax tudd tur bi ni mu nar a génnee moom du nekk day loo xam ne nii dina gën ci moom moo tax ñu ngi koy ñaan ne ko qu'il revienne à la raison qu'il sache qu'aujourd'hui am na loo xamante ni nii daana ko def muy jàll mais dootul jàll suñu ñëwee ci euh, moom la Déthié Fall président Déthié Fall wax sànq sécurité Ousmane président Ousmane Sonko bi mu arrêté te du sécurité président Ousmane Sonko yëpp président Yewwi Askan Wi yëpp la puisque gis nañu comme ni ko président Déthié Fall waxee taxawaay bi nga xam ne nii am nañ ko bi nga xam ne nii ñu ngi nekk ci campagne législative yi protégé wuñu rek président Ousmane Sonko ñëpp la ñu taxawu bépp bépp leader bu nekk ci Yewwi Askan Wi taxawu nañ la ak comme ni ko yeneen sécurité yi aussi defee mais ñooñu c'est parce que li ñu doon bëggoon yëpp def bi ñu convoqué le président Ousmane Sonko te ñu ngi koy fàttali moom président Ousmane Sonko moo insisté à ce qu'il soit convoqué devant le juge parce que épée de Damoclès bi ñu bëgg a teg ci boppam loolu la comprendre te loolu jaaduwul kenn du ko nangu. ñu convoqué pourtant ñoom dañu ne ñooñu dafa am lu ñu def bu ñu jàppee ne ñooñu dafa am lu ñu def loo xam ne nii méngowul ak li loi wax nañu leen convoqué et pourquoi convoqué wuñu leen ñu bàyyi leen ba ñu dem palais de justice. ànd ak le président Ousmane Sonko ñu téye leen jël leen bàyyi te bu ñu bu ñu neewoon sax dañu ànd ak président Ousmane Sonko balaa muy wàcc ci oto wala bu ñu nekk ak moom ñu arrêté leen mën nañu wax mais dañu bàyyi ba président Ousmane Sonko dugg ci bureau juge bi ñu yellee ku ñëw kidnappé leen waaw ñun ci ban dëkk la ñu nekk sommes-nous dans un état de droit am na loo xamante ni nag dañuy wax ne mag lu mu nangu ñu teg ko ko dagan na waaye ñun askan wi bu ñu nangu Macky Sall continuer di teg lii ci ci suñu ndodd am na loo xamante ni ni mënatul nekk boo demee ci ba sa askan bëggatu la wan nañ la ko ci élection locale yi weesu wanaat la ko ci élection législative nga continuer agrippé wu ci nguur gi nga war a xam ne boo def la attention ni nga nar a génnee nguur gi du neex ci yow moo tax ñu ngi koy wax ne ko Macky Sall ak ñii mu àndal revenez à la raison et puis bu ñu nekkee ci dëkk boo xam ne nii on dit c'est un état de droit régi par des textes est-ce que jaadu na ñu toll fii naan dañuy xaar makki Sall ndax dina wax ndax dina def troisième mandat ou te textes yi leer nañ loolu jaaduwul du Macky Sall moo war a wax ne dafa war a def troisième mandat textes yi ñoo ko war a wax te textes yi li ñu wax c'est très clair dañu ne moom mënatul def troisième mandat te yàlla li muy def dafa yéeme ba mu demee Qatar ne dafay jox drapeau euh, lion yi gis ngeen mayo bi ñu ko jox numéro 27. di ko fàttali que article 27 de la constitution donc nit la koo xamante nii bu fekkee ne am na xel bu astuut xel li ñuy wax euh, euh, discernement su ko amee astuut war na xam ne rien n'est plus avec lui jaww jeeg asamaan seeg suuf seek askan wi dara àndatul ak moom waaw boo demee ba toll ci situation boobu même boo gëmul yàlla même bu ñu xamee ne sa lépp ci xërëm la mais nga war a xam ne nag ñi bëggatuñ la nga bàyyi joxe léngay loolu nag moo tax ñu def point de presse bi parce que coupe du monde événement la ñun ñëpp dañ ciy participer seetaan football bi waaye du tey xeex bi ñuy xeexal askan wi mu dakk amul mi-temps de xeex bi ñuy xeexal askan wi amul mi-temps amul temps mort day jeex tant que demuñu baam am objectif ba atteindre objectif yi nga xam ne ni moom la ñu signé ak askan wi duñu arrêté pour bañ a guddal le président Ousmane Sonko dina ci ñëwaat loolu ñu ñu amoon pour wax leen ko di leen remercier ci seen teewaay ci seen taxawaay yéen it li ngeen di taxawee askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah moo gën a jëm kanam may doole Euh, nuñ koy waxee ñoo mën a dénoncer li nga xam ne du dëgg jaay doole boobu nag dafa xam ne ci Sénégal bu ko dellu gaa yi ñu yëpp parce que ñu gis na xam ko dund ko wax ci waxaat waaye li xew léegi rek ay interne des hôpitaux matuñu sax cinquante personnes ñu ko déjee base di waxee interne des hôpitaux mooy ku dem ba pare presque jàngam def bac plus huit ñu néew ci ñun fii ñoo def bac plus def bac plus douze di ay intellectuel di ay fajkat yoruñu ay gànnaay yoruñu ay xeer image yi man dañ moo ko envoyé léegi ma koy xool loo xam ne matuñu juróom fukki nit te dañuy wax ak nguur gi nguur gi tànqamu leen lan la ñuy laaj mooy dañ leen jox ab statut képp kuy liggéey ku ne da ngay am statut yéen journaliste yéen a ngi wax euh, nu mu tudd code de la presse wax code de la presse wax statut du journaliste soo demee ci fonction boobu ñu nga fekk statut général de de la fonction publique feneen ak feneen noonu les agents non fonctionnaires sax les gens des collectivités locales léegi xeex nañu ba réclamer un statut kon day jaar ñu mel noonu ak fu ñu jaaree ci njàng dañu yaakaar ci ñoom pour suñu wér-gu-yaram ñun suñu nee nañ leen jox statut ba ñu xam ci ban anam la toogee ñoom loolu est ce que jar na ñu leen di duma ak di leen sànni ay lacrymogène li ñuy laaj mooy insertion professionnelle ñëpp xam nañ ni Sénégal li fi nekk ci ay médecins nag doyul way norme OMS boo jëlee lépp en terme de nombre de postes de santé nombre de cases de santé de d'hôpitaux nombre de médecins, nombre de spécialistes, nombre de sages-femmes, nombre d'infirmiers, on est très en deçà des membres de l'OMS. kon ñooñu suñu jàggee ba toll fii ñaar ñaar yu benn faveur waaye nañ leen insérer nañ leen jël ñu liggéey faj askan wi kooku est-ce que jar naa ñu ne nañ leen wax ban payoor la ñu war a am parce que taayale bi ñuy jub si élection législative dañoo xëy yokkal ñëpp. seen salaire boo demee ci hôpitaux yi yëpp la ñu yokkal ba ci brancardier yi ambulance yi médecins yi sage ba mu des ñoom interne yi est que loolu jàpp na ku réclamer loolu est-ce que jar loo xam ne matuñu juróom fukki yi boo xoolee biir hôpital bi dañ leen sànni ak tégole su doon sax dañ leen fekk place de l'Obélisque lii nag nguuru Macky moo tax dafa jot Sénégalais yëpp xam ne ñun lu ñuy xeexal xeexaluñu ko suñu bopp ndax mbébétam bu sottee kenn dootul wax ci réew mi de kenn dootul wax kenn dootul noyyi sax waxuma laa wax à part wiiw Macky bravo Macky mandat à vie Macky tu es le plus beau ku wax safaan boobu bu yowoo nga xam ni musiba na dal sa kaw la ca des tam ñuy dellu di apporter suñu soutien ci détenu politique yépp Macky Sall dafa battre le record de la détention pour crime d'opinion tey ñu bëree bëri ñu ngi ci ay loxoom lañ leen toppee mooy xalaatin gu wuute ak xalaatam léegi laa gis ci presse bi ñu ne Karim Xurum Xax ak euh, euh, Cheikh Omar Diagne suba lañ leen di présenté ci juge d'instruction premier cabinet te li ñuy def yëpp ñoo ko tey gis nga suñu jàppee nit dañ lay jàpp ci lu ñàkk fayda ñu def pression ci euh, juge d'instruction bi ne ko yóbbul dossier bi ci ci euh, juge d'instruction ne ko yóbbul dossier bi instruction ay ñàkk fayda yoo xam ne jaruñu ci jàpp nit sax war woon dem sax flagrant délit mais dañuy def pression ne ko fexeel ba yóbbu dossier bi instruction pour métital rek comme ça waa ji ñu téye ko fa six mois six mois nga privé nit de liberté ak liberté ni mu mel ci nit nga privé nit de liberté pendant six mois ci yu ñàkk fayda yoo xam ne bis boo ko présenté devant un juge ñu war koo àtte gën saa bëri comme ñoom juge yi dañoo tàmm di bugg a couper la poire en deux dinañ dem ba xam ni li du dëgg mais comme ñi ci ëpp ci ñoom ragal nañu nguur ragal goo xam ne moo tax suñu wax indépendance la magistrature dañuy perdre suñu temps léegi pour couper la poire en deux mooy nañu ne bon nañu nañ ko def sursis bu ko defee sursis bi suñ ko defee trois mois suñ ne def nañ ko. Euh, six mois don trois trois fermes moom tëdd na six six mois ba pare ñu ne ko bàyyi leen mu dem ñibbi dañuy fooye léegi justice dañ koy fooye dañ koy fooye xoolal xew keroog mbuur procureur ci boppam chargé na l'autre partie ne ko yaa tooñ yaa provoqué yaa andi xeex bi problème bu am ci dëkk ba yow la xam nga loolu soo ko waxee war wax ji jeex na mais ci réquisitoire mu ñëw demander deux ans dont un mois un an ferme parce que il fallait que mu jox ñeneen ñi benn sucette bu ñuy bu ñuy ñoom ñi nga xam ne ñoo ñooy patron mais loi dafa ne un crime même su doon crime am na un crime quand il est provoqué il y a circonstance atténuante kon naka la ñu mën a ni ñuy foowee léegi justice bi ak ni ñuy foowee liberté nit ñi ci réew mi toll na foo xam ne après suñu jógee ne ñin ñi ñoo bëgg a monter les foules contre les magistrats déedéet ñun amuñu intérêt monté magistrats yi ñun kenn ku ne ci ñun am na mbokk magistrat kenn ku ne ñun am na frère wala cousin wala ku la jege koo xam ne magistrat la kon amuñu benn intérêt monté leen contre qui que ce soit waaye acte yi ñuy posé am nañu sañ-sañu apprécier ko ndax ñun ñëpp dañoo jàng droit ñun ñëpp li ci ëpp ñun fac droit la ñu génn ni mu tuuti tuuti am nañu déyaa ci droit ñu praticien nag te dañoo yor suñuy avocat di jëflanteeg ñoom am ay xaritu magistrat di waxtaan ak ñoom lu fi waay def te jaaduwul yow soo toogee wéet ak sa bopp xam nga ni jaaduwul juge bi ñu jox dossier Pape Alé Niang avocat yi dañ ma ne gis nga am na juge yoo xam ne bu ñu leen ko joxoon jour boobu Pape Alé Niang day ñibbi këram kuñ fi bëgg a def yóbbu instruction juge boobu lañ koy jox kuñ fi bëgg a yóbbu instruction ñaar ba ñetti juge dañ koy jox def leen pression ne yóbbul instruction. ba pare invoqué ay articles yoo xam ne diffusion de fausse nouvelle ak yu mel noonu nga xam ne obligatoirement mandat de dépôt te Pape Alé su dee loolu la ñu wax lañ ko toppee man maa ko njëkk wax conférence de presse dinaa jël si wuñ ma maa ko njëkk a wax man maako njëkk a wax te ne yor naa documents yi li tax duñ ma jël si kon li xew ci réew mi na ñëpp delloo si seen xel réew mi ñoo ko bokk de ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow. toog dem tànk sa kër lekk sa ceebu jën naan sa ataaya jël père de famille yóbbu ko prison xañ ko ay doomam xañ ko njabootam loolu ba kañ lay wéy loolu tôt ou tard dina jur ci réew mi loo xam ne ah mara day taali menacé ñu nag dañuy dañuy araftu pendant qu'il est temps kenn ëppalewul sa moroom ci ci réew mi nekk naa juge taxul nga gën nit ñi sénégalais nga ñuy sénégalais applique la loi jàmm ne ñooy mais soo bàyyee loi dugg ci yeneen fitna ngay indi ci réew mi te fitna juge rey na fi quatorze nit mooy manipulation yi ñàkk fayda yi Serigne Bassir Gueye doon def rey na fi quatorze nit bu ñu fàtte yooyu au nom de quoi kon bu loolu weesoo nag dëcce kii wax na ko léegi Aïda man damay féliciter suñuy député parce que war nañu fexe ba lii priorité réew mi bu ko fàtte mukk parce que dañu jàkkaarloog ñoo xam ne dañoo lajj ba ñëpp xam ne lajj nañu mën yëpp fenn la mooy allumer des contre-feux pour nasaxal xelu sénégalais yi ñi nekk ci ay détails commenter ay détails suba ak ngoon fàtte nag lan mooy problème yi lan moo tax sénégalais yi tey ndaw ñi amuñu liggéey lan moo tax mbay mi doxul lan moo tax càmm gi doxul lan moo tax napp gi doxul lan moo tax amuñu ay industrie lan moo tax coût de la vie toll fi mu toll nii loolu rek moo war a doon tey suñu farita fii ci réew mi leneen lépp su ñëwee pour féexal suñu xol la ñun ñëpp am nañu ñaan am nañ am nañu yéene yéene nañu Sénégal gagné coupe du monde day féexal suñu xol parce que nit dafa soxla loolu dinañu am bànneex ñaari fan ñetti fan un mois ñu feete mais su loolu weesoo su dee problème yi may wax nii réglé wuñu ko Sénégalais bu nekk day yeewuwaat nag ku amuloon dépense nekkaat ci situation ñàkk dépense ku munul faju nekk situation bañ a mun faju ku amuloon liggéey amal amagoo liggéey ba léegi ndax coupe du monde du ko fi andi moo tax yooyu yëpp nañ koy suivre nañ ci am passion làmb gi suñu sport la bu amee nañu seetaan nañ ci am passion nañu am lépp waaye bu mu tax ñu fàtte suñuy farata bis bu ñu amee niveau boobu rek léegi réew mi soppiku moo tax damay féliciter suñuy député ndax assemblée bi xam ngeen ni. gars yi sonn nañ def fi mu ne nii ñu ngi ñaan yàlla marathon budgétaire bi gaaw a jeex xam ngeen seen argument yëpp lan la ku yéeg ci tribune ba Ousmane Suite Boote yow ñu yóbbu la assemblée nationale pour nga wax ci farata réew mi benn argument la am mooy Ousmane Suite Boote député yaa ngi leen fay chifaay chifaay yu métti yoo xam ne ministre bu ñëw jaaxle na te waxoon nañ leen ko ñu leen di ci taxawaay bi di leen félicité ci ni ñu ñàkkee voté budget yi amul benn budget boo xam ne suñuy député voté nañ ko ñun suñuy député Yewwi Askan Wi laa wax parce que ñoom lañu am relation ak ñoom ñoom lañu campagne ànd ak ñoom campagnal leen ñu yóbbu leen assemblée nationale te dama bëgg sénégalais yi dafa am lu ñu waxante woon ak ñoom bi ñuy campagne ak ñoom ci taxawaay bi ñu war a am assemblée nañu xool ndax suñuy député tey am nañu taxawaay boobu wala amuñu ko xaw ma député keneen nag parce que kenn ku nekk da nga amoon engagement boo jël sa digganteeg réew mi waaye suñuy député ñun yewi askan wi ñoom ñëpp suma doon lim ñoom ñëpp bëri nañ fa lool ñoom Aba mbay ñoom euh, gi Marius Sagna ñoom Abass Fall ñoom Aïcha Touré ñoom euh, euh, Babacar Mbengue et cetera parce que ku lim juum. ñoom ñëpp seen taxawaay Sénégal yëpp gis nañ ko te loolu la ñu waxante woon ak askan wi bu ñu yàlla woon mayoon majorité rek ngeen di xam pour bloquer réew mi su ngeen joxoon majorité lu ñu andi muy njëriñu réew mi nañ ko wote luy safaan wa duñ ko wote budget boo xam ne un du budget bu sincère même loi de règlement il a fallu suñuy député taper sur la table pour ñu gaawantu joxe benn loi de règlement bi ñu ko xoolee le budget bi ñu exécuté bu passé bi il n'est pas boo jëlee rubrique comme par rubrique comme boo jëlee budget global bi dafa bëri loo xam ne boo jeexee ci biir doo ko fa fekk naanuñu fajuwuñu ñun dinañu voté budget boobu loolu moo tax ñu am taxawaay bañ fa am su soulevé nañ fa ay problème yoo xam ne ñoom amuñu tontu bi wala ñemewuñu koo tontu te dina am ay suites judiciaires yoo xam ne suñuy député dinañ ko posé kon ma ne dañuy féliciter suñu député yooyu parce que dañ leen santoon ñu delloo ci débat bi ci li nga xam ne mooy priorité sénégalais yi priorité sénégalais yi du xasante assemblée nationale bi moo tax liñ leen waawam yépp ci télé yi neen dem leen poser débat sur le troisième mandat xam ngeen lan moo waral lool li nga xam ne mooy coono réew mi la bëgg nit ñi fàtte ko naan troisième mandat dina am du am nangam nangam Macky Sall si les garçons na taxaw ci kanamu sénégalais yi mu wax leen bu boobaa la war a xew dina xew du affaire Ousmane Sonko du affaire Déthié Fall askanu Sénégal bu dee nangu nañu troisième candidature ñoom la bu dee nanguwuñu ko ñooma waaye laam-laame beeg yooyu di créer ay de débat nit ñi nekk ci du troisième dina am du am man de duma ci wax pour le ma xam ngeen lu ñu ñoral lu ñu soxal ñun fi mu toll nii ba ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi wax nañ jamono jëlee li xew ci jëndum ngànnaay gis ngeen ngànnaay dafa yàgg tas ay réew ngànnaay dafa yàgg tas ay réew te ngànnaay ñun suñu système ni mu doxee dañ ko mus a centraliser am ñu koy doon jënd ñu xam ngànnaay bi fan la jóge naka la duggee ci réew mi fan lañ ko stocké ba nga xam ne ngànnaay gune dinañu xam kan moo ko yox à temps réel mais bu ñu demee ba ay ministère de l'environnement di passé ay contrat quarante cinq milliards ci suñu budget réew pour ne day jënd ay arme de guerre problème am na ci réew mi gis ngeen ñun kenn duñu kenn duñu fa fàtteloo loolu waxu troisième mandat jotagul ngànnaa yooyu il faut mu leer sénégalais xam nu mu demee nga jël ko dem jox ko ab trafiquant d'armes boo xam ne nee nañ dëkk bi mu dëkk ñu ngi ko fay wër ngir ay luubal ak ay yu doy na yu doy waar est-ce que xam ngeen ni Macky Sall mi ngi tayle Sénégal te lii yëpp nag dara tax waru ko lu dul pétrole ak gaz ak zircon ñoom seen mi ngi dugal ci biir réew mi ay nit ñu dangereux ñoo xam ne ngeen xam ni coowal 45 milliards yi mu jëndee armes yi bokkul ba léegi ak contrat bu duuna duun bi nga xam ne jox na ko ay israéliens pour ñooñu defal ko benn liñ de garanti pour mu jënd des dizaines voire des centaines de milliards d'armement mooy li ngeen di gis léegi dara su xewee. ñu génnee ay dragon ay chars de combat pour pour intimider pour xëbal pour xoqatal askan wi ba kenn dootul ñeme wax loolu il faut mu leer il faut mu leer moo tax ñu jox ndigal suñuy député déposé nañu pour ay commission d'enquête parlementaire parce que ñaar yi ba léegi bokkuñu de 45 milliards yi bokkul ak bu bu yahut yi te loolu faw ñu wax ci ba mu leer lii suñu yitte ba léegi ci scandale yi dégg ngeen ma sama dernier point de presse. moo wax leen suuf si mu jël di ko jaay jox ko même yahud yooyu même même israël yooyu mu tuddoon noonu la jël dem dagg dëkk ba jël au commandement de la gendarmerie génne leen fa dem luwel leen almadi ñuy fay lu cher mu jël lu mat 5000 mètres carrés jox ko ñooñu pour ñu tabax fa ngan ngandim immeuble defar la ñuy defar te ñooy moom immeuble bi ñoom bi ma ko dénoncé dégg nga xaw ma directeur Patrimoine Bâti génn di wax ay waxu picc li mu wax yépp dafa confirmer li ma est-ce que ñun dañuy seetaan Macky Sall continuer moom ak ay ñoñom di pasar pasare réew mi nii di dem jël ay waa bitim réew di leen daggal suñu réew di leen ko jox dus dus bàyyiwul suuf si suufu taaxi comme suufu àll bi bàyyiwul géej gi bàyyiwul pétrole bàyyiwul gaz bàyyiwul zircon bàyyiwul lenn ñun ñu toog rek di seetaan boo waxee ñu ne dañuy weddi man dama leen naan toujours man de pare naa pour ñu organiser débat ma teere ko fii ministère des mines na toog ministre de l'économie et des na toog ku ñu bëgg na ñëw toog moo ko nekk fii di fay ay nit ñu nekk ci mbedd mi di wax su doon pays bu normal la ñu nekk dañu ñëw ñu débat débat public ma démontrer leen ni jaay nañu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal jaay nañu réew mi suñu ñëwee xëy na non c'est des questions technique vers tout le monde question technique bu lan jaay alalu réew mi contrat yi ne fag ñu téye ko nga naan question technique dégg ngeen keroog assemblée nationale premier jour bi Guy Marius Sagna na ministre des finance ne ko israélien yooyu ba léegi yow signal ngeen leen benn exonération ne waruñoo fay l'impôt fii Sénégal dégg leen bu baax li may wax dafa am solo jël suñu alalu réew lu mat ay centaine de milliards nga jox ko ay israélien waa bitim réew ñooñu ne ñoom duñu fay impôt Sénégal débrouillez-vous mais duma fay l'impôt ñu ab déwëlbatikuwaat Abdoulaye Daouda Diallo signé leen benn document ne leen du ngeen fay impôt du ngeen fay TVA fii biir réew mi ay dizaine de milliards ñu ñàkk ko noonu ci lu neex waa bitim réew te jamono joo xam ne tey jamono ji ñi ngi def tournée PPA boutiquier bi ne ci koñ bi su fayul cinquante mille francs yi fay ñu tëj boutique am waaye ku jóge bitim réew moom mun na ñëw ñu baal ko impôt wu ay milliards milliards loolu est-ce que jaadu na lii mooy les vrais débats au Sénégal c'est pas ay troisième mandat wu Macky Sall lay waxu kacaw buñ ci tollee dina wax sénégalais ndax day def troisième candidature parce qu'il ne sera président une troisième fois au Sénégal incha allah loolu au moins ñëpp xam nañ ko da ca des yëpp ay waxtu la ay ñun suñu yoon newu ci scandale yi fi am. dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko ci scandale vingt neuf milliards prorog yi ministre bu nilaar boo xam ne làkk francais bu leer sax munu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances moo mujj jël kàddu gi di ko tontul ñu jël ko def ko miir pour ne ko demal saaga Sonko dara xamu ko dem leen ngeen def interview ak moom ngeen ne ko mu làkk français fii lañ ko yóbbu France mu naan xaw ma ñun suñu tourisme on a des animaux xaw ma loolu mooy ministre Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo la ñu jël benn qualificatif ba qualification lañu ñu am mooy mën nañoo saaga opposition bi ñu def leen ay ministre ñu dem assemblée nationale ay député di leen toroxal foofu mu weddi ne moom benn rapport épingle ko waxul dëgg waxul dëgg il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral passage yu bëri xam nga ñoom li ñu xamul ñu document yépp la ñu am téye ko léegi naa saa yu ñu xëy dañ naan waa ji fan lay jële kan moo koy jox léegi weddeetuñu de waaye kan mooy tóob bi la mooy coow li rapport IG bi li mu wax émission par le ministre de tutelle d'un ordre de service de démarrage antérieur à la notification et à l'enregistrement du contrat en raison du principe de la chronologie des actes de procédure la notification de l'ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu'après celle du contrat auquel il se rapporte ce principe basique du droit des contrats administratifs n'a pas été également observé dans le cas d'espèce En effet, alors que le contrat n'a été notifié que le 25 juillet 2016 à l'entreprise Green 2000, le ministre Mbambeigna, assurant la tutelle du PRODAC, avait déjà émis cinq mois auparavant un ordre de service, numéro, etc., etc. Cet état de fait est d'autant plus déplorable qu'il résulte non pas d'une ignorance des textes, mais plutôt d'un souci de répondre aux exigences non contractuelles de monsieur Daniel Pinassi. kooku dem taxaw Assemblée nationale Sénégal yépp di ko déglu mu ne moom rapport épinglé épinglé wu ko damay toog ba si ak ma ne ñii est que seen bopp yi am na lu ci nekk ak nu ñu yabee Sénégalais yi kooku la Macky Sall jël def ko ministre ak ki nga xam ne moo luubal 94 milliards yi rapport of nag ne recommandé naa ñu ubbi léegi de pour poursuites pour escroquerie sur les deniers publics Macky jël jëm jël jëm jox ko ONAS dégg naa bi mu egsee fekk na fa déjà benn financement de 40 milliards. yow boo sénégalais xam ni 40 milliards yooyu <laughs> lu yàlla xam baax na mais lii mooy Sénégal lii la ñu war a waxti waxtaanee ci réew mi Macky Sall respecté wul yi amul benn respect ci sénégalais yi xoolal sagaru nit yi mu yóbbu assemblée nationale ay saagakat ñun de dañu war a sant yàlla ñun ñi bu ñu demulee assemblée nationale ñu bàyyi leen ak suñuy ndaw ñu leen di defal li ñu leen di defal foofu dañ ciy dellu sant yàlla kon. man li ma bëgg a wax mooy ñun Macky day jaay ni moom tacticien politique la Macky ñun ñoo ko dàq politique fuuf ba ñu commencé jàmmarloo ba léegi li ñu andi ba fii moo yor état moo yor armée moo yor justice moo yor renseignement généraux moo yor lépp waaye li ñu àndeek moom ba fii ba tey bi ñu génnee élection législative il était minoritaire xam na ni ñoo ko dàq politique fuuf yi muy def fay ay nit dem leen ci télé yi wax def leen di def leen la loolu ñun on est focus sur des objectifs très précis te ni ñu def ba taal xelu sénégalais yi ci loolu la ñu continuer nekk pour sénégalais yi xam li xew ci réew mi li euh, priorité Sénégal mooy sénégalais yi sonn nañu waaye kan moo ne fii te mënul ne moom sonn na nañu wax ci coût de la vie dundu gi ni mu chere lii mu def nii réglewul problème sénégalais yi de moo wax leen ko léegi nag. bu leen fàtte ni Macky Sall bi mu toogee 2012 première mesure yi mu jël c'était pour la réduction du coût de la vie affaire bi wàññeeku woon na ñëpp saluer ko mais au bout de six mois un an dafa mel ni ascenseur la jëlaat tey lu doon jar 2012 500 mi ngi jar tey 1500 lii mu def nii du régler problème mu sénégalais yi te li gën a garaaw mooy day boole sénégalais yi entre ñoom naa leen wax li ma wax li ma wax fu ma ko teg. parce que léeg dañ naan ñun duñu proposer gis nga boo buggee sénégalais seen dund wàññeeku dafa am lu ñuy wax de mesures structurelles mooy ay matuwaay yoo xam ne lu lu war a yaatu la te lu ñu lu ñu war a lal la ci euh, euh, ci app bu gudd mu am nag des mesures conjoncturelles mooy loo xam ne lu ñuy def teew bi teew la moom mënul def de mesures structurelles xam ngeen ndax la dafa lajji depuis le début am réew ma bëgg sénégalais yi déglu ma bu baax te lii mooy suñu différence rek ak Macky Sall ci gis-gis am réew boo buggee waa réew ma seen dund yomb soo buggee réew ma moom boppam dangay fexe ba réew mi am autonomie mooy réew mi mënal boppam ci lu ëpp ci li muy soxla réew moo gis li muy soxla li muy jëfandikoo li muy li muy jéggaane bitim réew moo ëpp téeméer yoon li muy defar ci biir réew mi réew moomu munoo fexe ba dund gi yomb <coughs> mënul ne Sénégal fii ñu toll nii deux mille vingt et ceeb dañ koy importer diwlin dañ koy importer suukar sax dañ koy importé te am nañ fi raffinerie ataaya dañ koy importer euh, euh, euh, nu mu tudd ndawal sax dañ koy importer dans ce pays la waaw nu ngeen buggee dund bi yomb ci réew mi moom nag bi mu toogee ba léegi lan la def pour ñu am mbay boo xam ne dinañu li ñu dafa ne woon 2017 ñu am autosuffisance en riz 2017 la ko fi dégg woon léegi joxewaat nañu 2030 laa dégg xaw ma dernièrement xaalisu réew mi yépp tubaab yi nax ko imposer ko ay investissement yoo xam ne du suñu suñu priorité damay wax li may wax toujours terre baax na trop de mais fondamentalement lan la changé ci réew mi est-ce que tax na nit ñi dundu dundu gu gën a gu gën a oyof est-ce que tax na li ñuy lekk wàññeeku est-ce que tax na paj mi amélioré wu est-ce que defar na njàng mi pourtant 2000 milliards def na ko ci terre bi 2000 milliards su ko defoon ci mbay mi ñoom am autosuffisance lii muy defar nii parce que moom tappale yi lay def day def ay affaires yoo xam ne pour ñëw def ay inauguration gars ni gis ngeen am nañu terre bu mel ni bu Paris Paris balaa muy def terre dafa lu mu jiital Paris balaa muy def terre fexe na ba koom-koomam dëgër ba mbayam dox ba càmmam dox ba lépp lu mu soxla mun koo amal boppam ñu ne kon léegi nañu def des investissements yu mel nii waaye dañuy def loo xam ne fexe ba am benn stade boo xam ne ñu ne suñu stade bi comme stade yu Dubaï waaye est que ñun suñu dëkk bi comme dëkku Dubaï la est-ce que suñu dund comme dund Dubaï la mooy rek jikko sénégalais même su ma amul lu ma lekk ak lu ma naan naa fexe ba am sama ñaari complet yu rafet yu may teg su may génn nag bëgguñ bugguma ñu yàpp ma dinaa sol loo xam ne ku ma gis ne waa ji manqué dara noonu la Macky Sall yore réew mi donc mbay doxul li gën a garaaw ñi ngi jël suuf si di ko jaay léegi waa bitim réew ñoom ñiy bay di yóbbu seen réew la ñuy trier lu répondre norme union européenne moom la ñuy delloo si réew mi muy pomme terre muy soble muy leneen càmm gi doxul moo tax ba meew bi ñuy naan sax dañ koy obligé importer napp gi doxul jaay na géej gi industrie amul amuñu ay usine ci réew mi nu ngeen buggeen dund bi wàññeeku mbokk yi du am moo tax ku bëgg a defar réew mi loolu ngay njëkk a farataal wàññi li ñu jëlee lépp dans quelque mois quelque semaine dina inaugurer BRT am naa mooy sànni tàccoom mooy dernière inauguration bu ko defee ñu ne xoolal bus yi non gis nga chaque dix minutes bis dina ñëw non waa ji liggéey na waaye lan la changé ci économie réew mi zéro nañu yóbbu xaalis bi ci àll bi def ko ci mbay mi def ko ci càmm gi def ko ci napp gi daa di jël suñu alalu dëkk suñu ressource naturelle yi teel ko suñu bopp daa di créer une chaîne industrielle loolu da koy def après tabax autoroute tabax autorail tabax BRT tabax ay stade lu yomb la lay doon parce que réew mi am na koom-koom bu ko mën te doo ko dem lebi bitim réew lii mu war a doon suñu suñu priorité waaye nekk ci débat yoo xam ne amul bopp amul genn troisième candidature ou pas ni nu non ça c'est son problème il ne sera pas président une troisième fois au Sénégal incha allah loolu au moins ñëpp xam nañ ko kon ñun Yewwi Askan bi ci lii lañu teg suñu action ak ci nekk ci terrain bi di liggéey kenn ku ne ci ñun président Déthié Fall la ngi ni tournée internationale la jóge kenn ku ne ci ñun mi ngi ci ay tournée man gannaaw ëllëg incha allah laay reprendre sama nemmeeku tour ñoo ngi dem dajeeg sénégalais yi wax ak ñoom wax leen lan mooy problème mu Sénégal waaye proposer leen ay solution concrète ñun tey fi mu jamono bi foofu lañ toll waaye wax ñàkk fayda yi ñu nekkee fii ñoom na ñu nekk rek ci presse bi di wax on verra fan lay mujj kon lii lañu ñu bëggoon wax ci lu gàtt boole kook li suñu naataango yu wax pour wax sénégalais yi ni réew mi ñoo ko moom Sénégal de manqué wul dara yàlla dese luñu dara ba mu des njiit gu baax yàlla dese luñu dara. li fi yàlla def amul France France amul pétrole amul gaz amul zircon amul or li fi yàlla def amul France kon naka lañu ñu mën a toogee ba suñuy doom naan dañuy jël gaal dem France wala dem Espagne dañu xoolaat suñu bopp te ñu nangu ñun ñëpp nag ni Macky Sall lajj na lamentablement parce que li ñuy njëkk a nattee développement cim réew xam ngeen lan la du ñaata immeuble la ñu tabax du ñaata autorail la ñu defar. premier élément de développement mooy indice de développement humain mooy nit ñi naka la ñuy dundee est-ce que ñi ngi lekk bu baax ci njëg bu yomb est-ce que ñi ngi faju ci njëg bu yomb wala gratuitement sax est-ce que xale yi ñi ngi jàng ci système éducatif bu baax est-ce que est-ce que loolu mooy premier élément du développement moo tax ñu ñuy classé ci vingt cinq pays les plus pauvres nañuy inaugurer ay trains nañuy inaugurer ay stades nu serons toujours par les plus pauvres parce que sénégalais yi dunduñu nous survivons mais nous ne vivons pas ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum. merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi rafet na di leen jox euh, dig daje